ñu ngi ñu ci eh, di seentu weeru safar. Mm-hmm. loo ci mën a baaxee rek mbokk. Mm. xanaa nun taalibe Sëñ Tuubaa yëpp ñoo xam ne mooy suñu weer rek. Mm-hmm. ndax sëñ bi lim am lépp ci la ko amee. Mm-hmm. te nun liñ am lépp ci ci ci ci ci ci sëñ bi lañ ko amee. kon nag suñ lépp safar la. lañ ko war a waajal. xanaa sellal ko. ak fonk ko. ci bernde. benn day xol benn day ruux benn day bool loolu nag mooy koo gis mu soxla ak lekk te nga yor lu lew nga toggal ko ko jox ko mu lekk nga yéen i sant li suñ borom di yee nit ñi ci digal leen ak tere leen di leen xamal seen diine ak seen taalibe boole ca loo mën ci yiw nga def ko te loolu lépp nag nga yéene ca sant li suñ Tuubaa borom tàmbale ko ci bis bi ba ca bis bu mag ba loolu rek mooy li ñuy def looy looy dénk mbokk taalibe yi nga xam ne. Mm. dañoo fas yéene màggal si. Mm. Euh, ci naka lañ war a war a comporté ba ci jiitu ñoo xam ne Sëñ Tuubaa léppam alxuraan la. Mm-hmm. ku ca mën a jàng alxuraan nga jàng nga jàngub kaamil bu sell jox ko ko addiya bala ngaa ñëw. Mm-hmm. boo ko mënut a gis ko ko man nga seral xolam mu defal la ko. Mm-hmm. te booy ñëw fii nga xam ne sa yaakaar yi tey ëllëg moo fi tëdd. booy egsi fii nga ànd ko dal ak yar xam ne daray caaxaan waram pof uroo ko egsi fii. te ñi fi mu yéen ñii ñu dénk liggéey bi ñu di leen déglu ku ci ne fu ñu la yemaloo nga yem fa waaw te bañ fi nekk di foto woo ko Sénégal yi fi caaxaan yooyu yëpp suñ Tuubaa caaxaan ji mu ci nañu sellal te fonk barab bi te xam ne sëñ baa ngi leen di gis buñ ko gisatut waaw loolu rek. dafa mel ne sëriñ bi am na ñaan boo xam ne. Mhm. sàkk na ko ngir ñu koy ñaanal wax ci barab bi. Mhm. kon rawatina. ay ñaan yu bari la ay ñaan yu bari la waaye na ngeen ko tasaare. afdalu siyaara. Mhm. yaakaar naa mën nañ ko. Mhm. gu ñaan gu ca ne sëñ bee ne ku ma bëgg ñaanal nag may ñaanali lii waaw sëñ bi wut ku ma bëgg a jox xaalis waxul loolu de. Mhm. ku ma bëgg a ñaanal nag ma ñaanali lii daal tan nam bëgg ko ko ne ñaanale. Mhm. bokk na ci yooyee allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina walana muhammad wa alihi wa sabi wahab li cheikhina moom moom waxut cheikhina waaye maa mënta wax loolu te tudduma ko wahab li cheikhina ahmad ibni muhammad ibni habibillahi maana waxu li nafsi wahab li ummati rasulillahi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam waraka maa nawaahu ahmadu bnu muhammadin lahu mu am ya rabbal alamin innaka amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi ci am ci afdalu siyaare yooyu mu tànn rek doy boo ci amul gennit xasida goo njëkk a jàng jox ko sëñ bi addiya te ñaan sa borom ci dara ji sëñ mu defal la nga bëgg boo mënee alxuraan nag sëñ Tuubaa léppam alxuraan jàngal alxuraan waaw. Hmm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ku la amin wa antum incha allah